Voilà kon sax euh, tànn bi nga xam ni tànn ko choix porté sur elle par Ousmane Sonko concrètement. job, Maimouna Diop boulot, Bousso man dama koy hmm. Ben, ça sama beaucoup la. Euh, ndax ki ma jàngal alxuraan la boo waajuram la donc kooku man dama koy Ben, c'est ci taxawaayam ndax Maimouna boulot, film, mu on a déjà fait. Fala wane woon encourage ci Ousmane Sonko te fala assimé andam ak Ousmane Sonko. Hmm. contrairement ak Wa Dakarou ak ñële waa Borbale. waa Ndakaaru ñooy ñan waaw c'est-à-dire fekkee Ousmane Sonko Ousmane Sonko gënee na soxlaa ndimbal jour ñu tasee Pastef jël Ousmane Sonko dugal ci kaso bi boobu lañ dem euh, créer seen kii boobu noonu tuddoon Lakos xaw ma Lakos ñoom ñoom Dambo ñoom jaantee ñoom nangam nangam. ak ak ñoom Déthié Fall mi ngi nii waxal tey. non Déthié Fall bokku noonu ci euh, Lakos euh, Déthié Fall mi ngi si Lakos. no Déthié Fall bokku ci woon. bokku ci woon. boo ko joxee Lacoste ñoom dàmbooj la ñoom jante ñoom may mun a busoo ah. ñoom nangam naam ñu yoroon ay mouvement de cebal parti la ñu doon dem ñu doon dem di di di di di di waaw mën na mën na ñëw mën na ñëw rek mais bokk ci wan loolu de cebal dinañ ci ñëw dina de cebal bul yàkkamti dinañ ci ñëw may mun a busoo jamono jooju la taxaw Assimi ànd ak Ousmane Sonko ñu ñu dem élection euh, gagné biñ gañee liste de euh, ministres yi génn gisuñ ko hmm. DG yi ñuy nommé chaque mercredi yi gisuñu ko mais déggoo mu def benn réaction li tax mooy may buso may mun a buso bi nga ko xamee ba tey ci ngëm-ngëm nga ko xamee maanaam xeex pour gëm dara man bi ma ko xamee ba tey ci loolu laa ko xam dippi jamonoy PDS ba jamonoy Macky Sall ndax jamonoy Macky kat bu soxla woon poste dina ko am ndax boobu mu ngi mouvement yam am na influence mu ngi woon ci réseau yi di wax boobu bu soxla woon poste dafay transhumé ndànk ci Macky Sall ñu jox ko poste mu toog ni muut mm. mais deful loolu taxaw assumer position am ànd euh, ci Macky Sall ne ko man sa opposant la mu taxaw jàkkaarloo ak moom te boobu dañoo mayoon euh, euh, Pastef beneen sens mooy boobu Pastef tas nañ ko jël Ousmane Sonko dugal ci kaso gi ñun amul fenn fu ñu waxee Pastef ay militant ak ay cadre am bu ñu bëggoon a wax ci lakos lañ doon làqatu pour mën a wax yaa ngi dee officiellement ci lakos lañ doon laaxatu hmm. donc kooku boo gisee tey bu buñ ko dugalee tey ci liste député donte ne man bettu man kay li ma doon xalaat mooy buñ tegee Sonko est-ce que du moom mooy ñëw deuxième man loolu rek laa doon xalaat mais assemblée nationale laa ko gëj a gis laa ko gën a gis aussi beneen bi aussi voilà foofu bëgg naa faa ñëw na ni aussi du am nga influence rek ñu neme la benn DG wala ñu neme la ministre hmm. man ministre dama gëm ne da ngay am background bi am xam bi am parcours bi. pourtant muy mun a am na ko de. non non pour man pour man. personnellement man assemblée nationale laa ko gëj laa ko gën a gis. ndax benn man na euh, porter communication te communication am dafay dafay def effet. donc kooku baax na nga yóbbu ko assemblée national beneen bi xaw na gëstu ci wàllu droit tuuti tuuti kooku donc dina am benn ato bu muy yóbbaale assemblée national te aussi dina fa mën a dina fa mën a liggéey lu am solo pour man. Mm, mm, mm. donc man daal gis tan biñ ko tan dal man rafetlu nako waye sax man fi mako don yakare sax gisumako moy deuxième deuxième position ci la liste nationale bi sax la ko don xare ndax taxawayam ak ak ak jàppale bim jappale parce que ak nim woné fidélité ci Ousmane Sonko. il faut mu fayeeku kon. non non pas fayé ko mais xam nga. li olof yi di wax xaw kuy xalam di ci jaayu. barke ba yaay borom. c'est-à-dire bi muy metti ñom ñofi nekkon di xex kon tey jii bu ñu demee bay euh, joxe responsabilité ñoom lañ koy jox ndax ñoom ñu ñi jëloon responsabilité xeex ñoolu boo ñu boo leen joxee responsabilité liggéey ñoom ñoo koy gën a matal man loolu laa gëm kon li nga doon wax nag sànq appel lan appel à candidature. loolu moom bon loolu dina loolu. tey bu ko bëggoon a def sax waa kon ku xeexu léegi. non non pas ko xexul wa non non pas ko xex xam nga tay il faut ngeen leeral. il xam nga appel à candidat parce que du men ni da ngeen coincé wu si question bu nu mel yéen waa Pastef. pas coincé wu non non non non da ngeen coincé wu en fait. Mm-hmm. si lolo parce que tantôt mm-hmm. xeex na liggéey na donc war na mën am dara. Mm-hmm. ah xam nga xam nga réew appel à candidature man ak ñoo si am chance. xam nga appel à candidature mo ngi am ni ami am waaw mu ngi mais nekkut lu officiel xam nga tey xam nga euh, nu mu tudd euh, gouvernement dafa am nu muy doxee ni muy doxee dañuy teg benn programme ne gouvernement bi nii lay doxee direction yi nii la ñuy doxee poste yi nii lay doxee ministères yi nii lay doxee loolu tey boo ko ah, euh, appel à candidature bu ñu ko bëggee def sax il faut mu nekk benn loi boo koy régir ne nii ak nii lay demee mais tey ni muy demee mooy dañuy woote rek ne indi leen seen seen seen lan seen i président xol premier ministre xor ñu xol tan ci CV yu joxe lolu moy appel à candidature bu officielut lolu mom moy appel à candidature bu officiel mais tay ñun buñ ko bëggoon a def sax il faut mu nekk ben loi bo xam dañ koy teug mais ñun fan lañuy teugé loi amagon assemblée nationale nañ ñu jox 150 députés ñu xol lepp luy loi bo xam dafa dafa dafa bax ci réew mi dinañ ko fi tek comme yéen euh, téeméer ak juroom fukk ngeen lolu moy objectif bi téeméer ak juroom fukk. ngeen di laaj waaw téeméer ak djuroom fukk ak djuroom bu méttee ba euh, métti fukk ngeen bàyyi ko ak ñeneen bu bu bu bu tuutee ba tuuti. téeméer ak djuroom fukki député bu tuutee ba tuuti bu bu bu élection yi metti ci ñun ba metti ba ñun nga xamné ñun wacc nañ nañ am téeméer ak djuroom fukki député loolu lañuy xaar. waaw loolu la xaar te dinañ ko am bu soobee yàlla. mais ak li fi xew lépp concrètement justement seen si mooy. ñu ko ñenn ñi jàppee ni li doon xaar euh, nekkul lépp li ñu gis si li nga xam ne que moo di régime bi. et tant mhm. d'autres et attentes mm-hmm. euh, yi. ñoom bu ngeen ni jàpp ni yaakaar yi tas na. ñii aussi jàpp ni euh, waa sàmm sa kaddu nii ni dëppoo leen ak kaddu yi na xam ni itam yëkki ne ko. Mm-hmm. concrètement est-ce que sa sera facile euh, pour ngeen atteindre seen objectif bi na xam ni itam teg ngeen ko en place. Bougane Gueye bu waxee yaakaar yi tas na de wax na dëkk ndax moom yaakaaram mu ngi tasee bi bi muy bi muy toog di ñu xaar deuxième tour ñu làbbali premier tour foofu moom yaakaar tas na. Fallou. Mm. gis nga réew mi. ñi faloon président Diomaye fay mu jël le président Ousmane Sonko def ko premier ministre gis nga ñooñu fañ nekkoon ba léegi ñu ngi fa bu yokkul wàññeekuwul benn virgule wàññeekuwu ci ndax ñun bi ñuy fal dañoo xam lan la ñu fal ñoom ñoo xamul woon lan la ñuy fal ñun ñoom ñoo xamul ñun ci lan lañ ne mais ñun bi ñuy tànn jomaay di tànn président Ousmane Sonko ñun boobu xam nañ ci lan lañ ne. Mm. ñu jël réew mi jox leen ko ñu dawal 6 mois tey benn. budget bi ñu dawalee six mois yii du seen budget ñoom voté voté wuñ ko. Hmm. budget wu Macky Sall la. leneen luñ fi def ci definu Macky Sall lañ fekk rek ñoo continuer ko. nawet bi nawetu Macky Sall la. nawet bi nawetu Macky Sall la. Hmm, hmm. budget bi budget wu Macky Sall la lépp Macky Sall la lépp Sall la même FMI bi FMI bu Sall la. kon ñun. <laughs> Ah, ni ngeen <laughs> ni ngeen bëggee réew mi daal. non non ñun loolu xam nga kañ lay jeex. non xam nga kañ lay jeex. le 17 novembre bii di jeex loolu un mois moo ci des. le 17 novembre ñun bu ñu amee majorité dem assemblée nationale ñu voté budget teg ne am leen kon ñu gis ñun ñoom euh, maalaw moo mën a war mbaam mbaam kon ñu xam ne maalaw moo mën a kott moo mën a war mbaam loolu moo fi ne gis nga état dafa am bu la ko joxee tamit dafa am ay levier yu muy àndal yoo xam ne yooyu moo mooy tax mu dox léegi levier yooyu daf cee bokk assemblée nationale dafa am solo ndax tey ji yow xoolal ci assemblée nationale bi ci diggante six mooy ñaata ñaata yoon lañ bëgg a bloquer exécutif bi hmm. exécutif bi am ministre jógewul fële ñëw toog ne dafay def orientation budgétaire ñu ne ko du fi amee ndax mm. Sonko daf ñoo ñaawal mm. wala daf ñoo saaga ñoom ñoo ko wax ci ci caaxaan yu teguwul fenn ne Sonko dafa dem ci Facebook am saaga ñu léegi ñun duñ def orientation budgétaire donc loolu boo ko gisee ci 6 mois yi ñoom niñ taxawee ak ñun nga xam ne tey jii buñ coopéré woon ak état bi ci man assemblée bi mën na dem fii ba 2027 te duñ ko tas buñ nangoo na coopérer di doxal réew mi tax leen tax leen a jóg. waaw ah, Ousmane Sonko taxaw di leen menacer naan modifier leen. loolu dina dina leen menacer ndax état d'autres oui Ousmane Sonko moo ne leen le dou le douze keroog bi mu ko waxee laa neen lu wax def ko. le douze dinañ tal leneen lu du nekk ay député. ndax li mu wax def ko waaye Diomaye est-ce que lu mu wax lépp lan. jomaay jomaay jomaay jomaay moo gën a jo jomaay lu mu lu mu la waxoogul sax da koy def waxuma la li mu wax. Ah, ginnaaw ba mu nee Sonko day def DPG am. après ñu tas assemblée nationale. waaw euh, yow loolu noo ko jàngatee. waaw loolu moom moom moom prérogative am la ah, prérogative am la moom bu neexee mu ne Ousmane Sonko le treize da ngay def euh, déclaration euh, kii. non non mu wax Sonko day def le treize déclaration. waaw bu bu ko waxee waaw. waxu ko sénégalais di assemblée nationale non non sénégalais la ko wax. non non assemblée la ko wax non non attends attends mais quand même la ko nag. mais mais yow yow lim bind mul ci sénégalais ci assemblée ci pouvoiru assemblée la bind. waaye DPG bi sénégalais la concerné. waaw mais DPG bi tegu ci fan ngeen war a mën a jëmale DPG boo xamante ni yoroo budget jarul def man loolu laa leen wax budget bi du suñ budget budget bu Macky Sall la Macky Sall defaloon na ko DPG jarul ñu koy ñu ciy jaaraat di def DPG nañ xaar ba suñ budget ñëw ñu def DPG suñ budget nag mu ngi ñëw à partir de 17 novembre bu ñu amee 155 députés yi bu soobee yàlla léegi ñu gis lu leer DPG buñ mës a gis la ñuy gis ndax xolal national loolu la ñuy xaar. investisseurs yi loolu la ñuy xaar. Hmm. Euh, au niveau international loolu la ñuy xaar. DPG boobu rek lañuy ñuy xaar. alors sénégalais yi nañu jox majorité rek léegi ñu gis ñu xam ne maalaw moo mën a war euh, mbaam. c'est clair exactement. aywa euh, c'est clair Abdallah. Hmm. Abdallah Dieng. ñëwal jox réew mi nag. Hmm. dañ lañ jox réew mi de. <laughs> réew mi jox réew mi Euh, ginnaaw loolu euh, ajaratu Maimouna Bousso ju koy félicité bu baax a baax a baax ku jàmbaar la quoi comme pulseur moom ki nga xam ne que moo di Maimouna Bousso exactement leneen itam di ko de la régie El Hadj